alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chaîne malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. nuyu ñëpp. mooy ci turu sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Amine Cheikh Ibrahim Niass. ndax te ba mu yëgee xew-xew bi ba léegi. mooy Cheikh Mouhamadou Amine bi mu yëgee xew-xew bi ba léegi. Euh, ci ñaanal oustaz Ba rek la nekk. mun na ci ñaanal oustaz Ba rek la nekk. ñu ngi leen di jottali. di wax ne oustaz Ba mi jóge fii nii. mu ne di wax ne oustaz ba mi jóge fii ah li nga ko xamee daal mu ne li ñu ko xamee daal bëgg bàyyi rek lañ ko xam mu ne bëgg sëriñ bi Cheikh soo ko bëggee mu ne te bàyyi boo ko bëggee da ngay dañuy delluwaat ci baytam bi moo waxoon rek wa man yuhibbuni wa man yaraani fi jannatil xuld bila buhtaani mu ne boo bëggee Mawlana Cheikh Ibrahim dañuy delluwaat ci baytam bi mu waxoon rek képp ko ma gis wala nga bëgg ma rek sa yaram aama na Ba mii mu ne kon Oustaz Ba mii mu ne ci meloom moo ana Cheikh Ibrahim la ci waxam mu ne ci waxam bàyyi la mën a bàyyi la ba tey ci jëfam mën a ci jëfam bàyyi la bàyyi la ci jàngaleem mën a ci jàngaleem bàyyi la mën a bàyyi la léppam bàyyi la léppam bàyyi ñes la radiyallahu anhu ñun li wax fii mu ne ñun lu wax fii du ma fi wax leneen lu keneen waxut mu ne dafa wax leneen loo xam ne keneen waxu ko fi ndax wax bi yépp benn la mu ne ndax wax bi yëpp benn la kon ñi ngi jaale mboolem umma islamiya sëriñ bi nee na ñi ngi jaale mboolem umma islamiya yëpp ci damm-damm bu mag bi mun na ci damm-damm bu rëy bi nga xam ne moom moo daanu ci suñ kaw ndaxte borom xam-xam su jógee ci dëkk mun na ndax borom xam-xam bu jógee ci dëkk lu bëri dem na mun na lu bari dam na waaye alhamdulilah. mun na waaye alhamdulilah. ba nga xamante ne mun na ba nga xamee ne xam-xam bi xam-xam bi bàyyi na ko fii mun na bàyyi na ko fi ci ay taalibeem mun na ci ay taalibeem ci ay soppeem mun na ci ay soppeem ba nga xam ne incha allahu. mu ne ba nga xam ne incha allahu. liggéeyam du kenn du ko fàtte. mu ne liggéeyu oustaz ba kenn du ko fàtte ba ilaa mi diin. benn arab dafay wax mu ne haadihi aathaaruna tadullu alayna fanzuru baadana ila al aathaari. mu ne lii say benn arab dafay wax ne. mu ne benn arab dafay wax ne. su ngeen bëggee xam kii lim fi bàyyi. mu ne su ngeen bëggee xam kii lim fi bàyyi. xool leen jeexitalam yi. mu ne xool leen jeexitalam yi. kon fii nii. mu ne kon fii nii. mboolam bi rek. mboolam bi rek. bii fi teew. bi fi teew. dafay wane ne ki fi jógee. mu ne dafay wane ne ki fi jógee. nit ku màgg la woon. nit ku màgg la woon. nit ku baax la woon. nit ku baax la woon. nit ku jub la woon. mu ne nit ku jub la i tam dafay def li muy def. mu ne dafay def li muy def. boole wax. du ci boole wax. du ci boole dara. mu ne du ci boole dara. ci dara bokku ci lu dul jëf. alhamdulilah mu ne alhamdulilah rabbil alamin. mbokkam yi nag. mu ne mbokkam yi nag. leen di jaale. sëriñ bi nee na mu ngi leen di jaale ci lamiñu Cheikh Ibrahima eh, Mouhamadul Amin. suñ gisee mbooloom bi yëpp. mu ne buñ gisee mbooloom bi yëpp. métit bi nga xamante amoon nañ ko. métit bi nga xam ne amoon nañ ko. wallaahi suñ gisee mbooloom bi dafay wàññeeku. mu ne wallaahi buñ gisee mbooloom mii métit boobu dafay wàññeeku. dootuñ sax am métit. mu ne dootuñ sax am métit. parce que. mu ne parce que. nit la koo xam ne. nit la koo xam ne. alxalifa. alxalifa. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. Cheikh Ahmad Tidiane. Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. gërëm na ko. gërëm na ko. Cheikha Mariam. Cheikha Mariam bint Cheikh al Islam. gërëm na ko. gërëm na ko. xalifa bi mu nekkal nii. xalifa bi mu nekkal nii Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass. gërëm na ko. gërëm na ko. bàyyi tamit gërëm na moo Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass gërëm na oustaz ba kon dañ koy bàyyi ak bàyyi mu ne kon dañ koy bàyyi ak sëriñam Mawlana Cheikh Islam oustaz ba oustaz ba dafa mel ne dafa doon or mu ne dafa mel ne dafa doon or ci bàyyi lay dogee tey ci bàyyi tey kon incha allah kon incha allahu rabbi jël yoon nañ préparé jël yoon dem incha allahu yóbbu ko yóbbu ko mu dem dogi ak soppam dem dogi tey jii ak soppam bi Mawlana Cheikhul Islam ñi ngi gërëm ministre mu ne mi ngi gërëm ministre Pape Malick Ndour ci taxawaayam ci taxawaayam su gërëmee nag euh, Pape Malick. mën ne bu ñu gërëmee Pape Malick ministre de la jeunesse. président la ñuy gërëm. président la ñuy gërëm. ndaxte lii nii. mën a ndax lii. itte bu mag la. itte bu mag la. te ci dem. ndax kii dem. du ku ndaw. du ndaw. kon ñi def. ñaan mu ne sëriñ bi nee na ñu def ñaan jàng fatiha jàng fatiha benn yoon ñetti salaatul fatihi ñetti salaatul fukki xuloo ak benn ak benn ñaanal ko yàlla mën nañu ñaanal ko yàlla du yërmande de waaye dem ak Baye. mu ne du yërmande waaye dem ak Mawlana Cheikh Ibrahim. waxee nag dem ci Baye nag. mu ne bu ñu waxee dem ci baay nag. mooy jëmm yërmande. mooy jëmm yërmande. kon salaamaaleykum. sëriñ bi nee nañu jàmm Faatiha benn yoon fukki xuloo ak benn fukki salaatul Faatiha. waaw. Amin ya. Okay. Amin. Amin. آمين سبحان ربك رب العالمين آمين يا رب آمين آمين يا رب آمين يا رب